l'ancien ancien régime bi defoon te état continuité régime bu bees bi dëgmal ko jamono ji il faut nga xool fonction système de santé le département ministériel en charge de la santé moom yorul santé dimension santé population a une dimension santé bien-être la mm. donc la dimension santé doit dépasser sa prérogative du département ministériel en charge de la santé waaye meilleur système national de santé à travers une politique qui est qui le PNDS hein, ah, c'est matérialisé à travers le programme national de développement sanitaire et social mm. mais dimension une dimension offre de soins c'est désastreux c'est c'est l'hécatombe catastrophique parce que soins système parce que système de santé définition bu générique bu simple du lenn l'ensemble des organisations des ressources des institutions qui euh, produisent des interventions sanitaires ta intervention sanitaire du lenn lu tout acte destiné à gagner euh, bien-être nit ki waxuma maladie le système de santé d'habitude est très médicalisé alors que c'est pas seulement maladie maladie donc fonction offre de soins Sénégal nous avons dañuy la qualité des des soins au niveau des structures de santé waaw Les nga soin nous euh, améliorer bien-être nit noonu la détériorer su qualité D'ailleurs, ça. ça donc offre de soins bi suñ ko analyse et fii la ñuy ci accessibilité géographique bi ci accessibilité financière etc. bon l'accueil ça c'est c'est une non c'est une c'est une petite dimension dans la prise en charge quoi mais moi je parle euh, de manière macro parce que système booy doit assurer la fonction d'offre de soins assurer la fonction de financement financement avec nak jamono ji ñu euh je pense que il faudrait que ci dynamique rupture nous repenser au mode de financement de notre système national de santé. foofu foofu tam foofu tam bëggoon naa par exemple su ma le régime du film mujj mhm. à un moment donné gis nañ ko ñuy inaugurer ay infrastructures ay affaires ay hôpitaux wala ay qui sanitaire am ñu fi ay bâtiments yu rafet etc est-ce que réellement loolu mooy solution bi wala Euh, niñ ko doxale du noonu quoi parce que ñun xam nga les populations ñun dañuy tok rek ñene ñu am na hôpital bu bét fi créé nañ nangam ñu inauguré ko en grande pompe wala du finalement du lolu ko fondamental am nga am nga mom la la wax ressources yépp nga xam ni état du koy jël rek pour ñongal waaw wérgu yaramu askan wi lu bax la waaye dans le cadre stratégique il faudrait que le système soit performant système bien amené assuré bien-être il faut que nous performant de dimension au performance pour nous nous ko analyser ci finalité du système nga analyser quatre fonctions mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. fonction de demande fonction d'offre fonction de financement et fonction de régulation mm-hmm. fonction de financement dafa am problème nous nañ ci émission parce que financement dafa am trois sous-dimensions nan lay ñuy Sénégal parce que santé l'approche économique c'est la santé du bien individuel bien collectif la sénégalais bu sénégalais ko pour mu faju lolu mo poussé dëkk bu melni Rwanda am régime d'adhésion obligatoire waaw fii dañuy def euh, des des actes yo xamni c'est des actes politiciens amul ben sens. mais fii pourtant faire métier am na ay temps coowoon nañ ko fi trop sax. tout le monde aller <laughs> oui mais pour rester dans la dynamique. Hmm. ci financement bi. wa dama né dañuy def des fois. Hmm. des actions politiciennes. Hmm. yoo xam ne amul benn jeexantal ci askan bi. wala mën non gëna bax ndax suñuy wax politique de gratuité yi d'habitude. politique de gratuité mais c'est pas c'est pas pertinent hmm. ndax xam nga politique de gratuité plan césar. Euh, gratuité des soins chez les enfants wala césarienne hmm. mais il n'y a pas de limitation césarienne par exemple hmm. il y a des ministres yo Si ñom suñu hôpitaux hôpital yobu sen jabar dañuy bénéficier ci gratuité bi la pour population indigente c'est généralisé alors que dëkk bu ñu ëpp doole foofu muy États-Unis dëkk boobu la santé est privée c'est le système capitaliste mm-hmm. assurance ngay def sa adhésion waaye ñoom ñu ñuy dimbale c'est les populations indigentes mm-hmm. à travers le programme deux programmes mm-hmm. hein? euh, il y a le programme euh, nan la tuddati sax ça. na am nañu ñaari programme waaw am na benn je crois Obama moo ko fi il y a il y a ils ont deux programmes pour les populations indigentes mm. donc soo jëlee lu ci mel ni fonction de régulation mm. te foofu dinaa fa des mm. ndaxte lu ma indi tey ci loolu la moom mooy que ni système de santé bi euh, fonction de régulation bi dafa sooxe lool anarchie sax dafa dem ba am ci système de santé bi waaw lu ci mel ni man secteur d'activité bu ma nekk nous ñu am mission ñun former ay agents de santé ba ñu réussir parce que suñu mission c'est d'assurer la, formation une formation de qualité dans le domaine de la santé avec des mesures qui soutiennent la réussite académique et l'insertion professionnelle dañu sétlu ni que ministère de la santé depuis régime bu yag bi ba régime bu bees bi euh, jalgati yoon rek lañ fi nekkee dañuy jalgati ci walu formation bi ndax seen yoon nekkul ci formation initiale euh, le président Bassirou Diomaye Faye bu mu toogee lu def il y a le décret portant répartition des services de l'État après il y a eu les décrets portant attribution pour chaque département ministériel Ce mmh. demee ci décret 2024 portant attribution du ministère de la santé waxuñu ko day toppatoo formation initiale Nous avons ko wax formation continue agent de santé continue moy ku le recruteur Il ba a yow yaay xol ay besoin de formation pour performance du système bi ngay def ay plan de formation pour former ko mm. mais dafa nous immiscé wu suñu activité jaxase Le secteur bi ba kenn xamatul école de santé pour former santé ou l'enseignement supérieur pour former santé bi nga euh, répondre na aux normes ak école yu répondre aux normes lepp la jaxassé waaw leneen li moom mooy que ni le ministère de la santé. moo ko wala dafa fekk. cadre wala bi la c'est le c'est le ministre. qui mm-hmm. est à la tête de ce département là. Mm-hmm. moom la mon teg ci ndoddam. Mm-hmm. responsabilité bi ñoom nañu jàpp aussi nous mu fay fekk comme nous ñu ngi soog non xam nga xam nga. les lois n'ont pas changé. les dispositions législatives et réglementaires de notre pays. changé wuñu. même décret portant attribution du ministre de la santé changé wul c'est à peu près la même chose waaw luñ ko mon nommé le ministre lit mon moyen sa mission ministère de la santé luñ ko je c'est de préparer et de mettre en œuvre les orientations politiques du chef de l'État en matière de santé et d'action sociale ce fa Nous, éducation ñu am ñett ministère yu est l'éducation. Nous avons une attribution qui est l'éducation. Qui éducation nationale qui formation professionnelle qui jàng bi bu kawee bi mm. enseignement supérieur mm. yow nga ñew di piétiner ci sen plate-bande alors que yow suñu doon xool luñ ñu la dénk mm. matalé wo dara ba paré nak immiscé wu wax naa la ci biir formation bi jaxase na ndax légui mom immiscé wu na tamit ci biir recrutement xam nga ministère de la santé ci attribution amul sañ-sañu recruter. kon lu ñu am le ministère chargé de la fonction publique mom moy recruter. Ah, recrutement personnel de santé amu ci. mané il recrute plus de 9 hmm? il propose aussi il peut proposer. Hmm. il recrute plus de 9 waaw il fait part de ses besoins. Hmm, ñu recruter ko. mais mais le dernier mot ne lui revient pas. ci ci ci ci attribution luñ ko wax lan la. ñu ko recruter mom moy xol faut besoin population en matière de santé nekk mu affecter l'enfant. fa. Hmm. ñooñu ci ci. je euh, comprends Qui wam la répartition. besoin les besoins selon les différentes qui les zones. qui sont qui sont en besoin. mais moom day recruté plus de 9 du personnel de santé. Hmm. ce qui est anormal Ah, day délivré des diplômes. le ministère ci le ministère de la santé. des ah de faux diplômes de faux diplômes et je le dis ici parce ah, que examen de certification waaw nga man tout ce que je dis je ne ko teg ci bakkan ndax dama am mission boo xam mission bobu avenir ou jeunesse bi ñuy wax daf ci dépendre hmm. suma ma des abus d'autorité et des discriminations kenn amul maqama ma bañ ko wax wala ma bañ ko xeex ñun au niveau du syndicat on a dialogué par tous les moyens dem nañ ko le juge Demba a dit dit ak dans ce cadre là après les incidents yu fi eu euh, Louga ak Tivaouane nag ak euh, Abass Ndao président Macky Sall ñun demoon ñu poussé à nañ ko commander commandité des audits pour euh, des audits généralisés des écoles yep di former dans le secteur de la santé te pourtant audit yoyu confié au ministère de la santé xam nga kan la confié ministère de l'enseignement supérieur ndax mom ministère de tutelle euh, le ministère de la santé qui décret portant organisation du ministère de la santé pour 2023 amna ay coppite yu fa am may ma décret yi ah, après nga ñëw question non dina ñëw ci recrutement bi décret c'est mm. plus apporter des clarifications par rapport au recrutement mm-hmm. décret bu organiser ministère de la santé sur le plan structurel mm-hmm. ENDSS moy école nationale de développement sanitaire et social mm-hmm. dafa bokon ci ay services am hmm? au niveau international kuréel bu ñuy CDF moy le secrétariat international euh, le secrétariat euh, international, le secrétariat exécutif des infirmiers et infirmières des, États francophones. Mm-hmm. En 2011, dafa de mémoire les formations infirmières des ko bout université notamment avec la création de diplômes de de licence de master et de doctorat Mon suis master donc perspective plan de carrière les mhm. lay ñu bëggoon indi ci corps yooyu nga xam ne corps infirmier ak corps sage-femme norme de l'ICM prévisées pour la formation des sages-femmes bu 2021 bi beaucoup bu ko précédé bi sax ci biir norme dañ la pour nga def formation sage-femme il faut nga am bac te il faut nga au minimum 3 ans OAS l'organisation ouest africaine de la santé tout, qu'au niveau euh, de la sous-région nous confronté confronter à une pénurie extraordinaire en matière d'agents de santé parce que dans des études même du OMS def euh, OMS nous dit que dans 47 pays de l'Afrique de l'Ouest on a un seuil de densité du personnel de moins un agent de santé pour 1000 habitants alors que norme B pour nous atteindre couverture sanitaire universelle d'ici 2030, 4,45 pour 1000. Nous avons un agent de santé pour 1000. Hmm? ba nous savons qu'il que dafa une disparité une inadéquation entre les besoins des populations et la formation depuis 2006 l'Organisation euh, ouest africaine de la santé initiée le processus d'harmonisation des programmes lors de la 11 11e assemblée euh, euh, des ministres de la santé Sénégal nous nous avons nous pour formation infirmier et sage-femme désormais dañuy adopter ben programme Boutoudou, licence en sciences infirmières et obstétricales formuler ci ay recommandations les écoles yuy former licence nous avons nous ñu rattaché l'enseignement enseignement supérieur ñun ñii di topp yoon di ko dégg ñun ñu dem am ñoo xamante ni ministère daf leen ne bu leen dem toog leen ma leen organiser examen bu illégal di leen jox ay faux diplôme waaw ndaxte l'examen organisé par le ministère de la santé social de sociale ah, non ñun hmm? faux diplôme waaw pourquoi faux diplôme quelque chose qu'on a organisé sur la base je veux dire que ne ce qui se fait peut être à votre niveau de ngeen jàpp mais est ce que lui il n'y a pas faux, foofu ñu ñu jàpp ko fere wala. attends ah, ah, am nga am nga man. Mhm. quand on parle on parle dans le cadre réglementaire. tout à fait waaw. xam nga ñun ñiy dem cour suprême. Mhm. porter plainte examen de certification boobu. waaw xam nañu lu ci nekk. nu non non xam nga. Mhm. xam nga en matière administrative nous sommes dans l'administration. nous sommes investis de service public. Nous ñun suñu école yi sax arrêté moo leen yi habilité moo nous nous sañ arrêté acte administratif hmm. donc nous, texte yi monsieur Ousmane Sonko le euh, gouvernement am organiser une ay formation hmm. man lancé un appel pour nous former hmm les fonctionnaires et les membres du gouvernement ci dispositions législatives et réglementaires mm. ndax di nga un cadre de haut niveau ministre ça. bo xamanteni ni day ignorer les dispositions législatives et réglementaires man daje naa avec l'ancien ministre mm-hmm. euh, euh, sama tata bobu Marie Xemes Marie Xemes waaw mais biñu togué waxtaan ak mom ba expliquer ko le fond du problème xam nga lan loo won lii yépp oui, désormais tout ce qui est post bac va à l'enseignement supérieur tout ce qui est ah, post bac hmm. ça va à l'enseignement supérieur Un mon mon ministère dorganiser organiser examen de certification Il faut dafa service hmm. ministère de la santé hmm te temps yooyu. nekkul woon formé wul kii deful ben examen sax. non NDSS. E mm-hmm. fi mu tolni il ne fait pas l'examen de certification. Mm-hmm. les UFR santé les UFR santé depuis 2019 ñu formé former licence. Mm-hmm. les CRFS yi nga xamanteni defu ñu rattachement enseignement supérieur nan nga une wax licence ba ci joxe ay attestation te pourtant yow mon autorisation ministère de tutelle bi ministère de l'enseignement supérieur population en danger aussi des écoles uniformes ay je le Abdou au niveau des structures de santé il y a plein de faux diplômes et je pense que ça constitue une urgence de santé publique et il y a une discrimination pas possible dans le recrutement des agents de santé rawatina infirmiers et sages-femmes ñun les établissements yi nga xam ni dañu topp yoon xam nga ñaata la Sénégal établissement yi nga xamante ni dañu am habilitation am accréditation euh, à ma connaissance à ce jour ñett la yi di former infirmier ak sage-femme. trois yi ñu nekk Sénégal yëpp. trois wala Dakar nga may wax. trois moom elle est sage-femme loolu daa ma koy xool di ko ko. habilitation yi. habilitation. Ah. ak accréditation établissement yu ko fi am ñett lañu. mais est-ce que yeneen ñu dañu nek ci procédure rek. voilà bon loolu dinaa ci da ngay dégg ñu naan problème de procédure là parce que am ñu xamni buñu xasse ba am agrément yoy mais il y a d'autres procédures à suivre pour que ñu mën am habilitation. lolu lolu lolu mhm. xam nga moy lim la wax. quand la réforme LMD est entrée. Mhm. ay entrée au Sénégal. Mhm. nit ku nek loi su amé ak ko munti nekk d'avoir conformé à la réglementation mhm. d'autant plus qu'il s'agit de la réussite académique d'une jeunesse d'une jeunesse pour xamante nous dañuy Nous euh, souffrir mhm. les nga mun cautionné, ci secteur bu délicat ni déli bu délicat ni secteur santé y am ay risques ay écoles yoo y ni amuñu këyit am na ñoo xamante ni seen ñàkk këyit c'est légitime parce que c'est la faute du département ministériel de la santé acte des départements ministériels de tutelle. Et je le dis ici. Il y a eu des actes Yohamanteni, c'est des actes Yohamanteni, responsabilité, c'est au plus haut niveau. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, ils me suivent. Il y a une lettre circulaire, Bohamni, a un blocage administratif pour école yi qui dem rattaché wu enseignement supérieur ñun biñ ko doon def dafa yag au niveau du ministère de la santé ñom dañuy des ak école yi nek aux normes école yi am habilitation am accréditation c'est grave hein la division de la formation du ministère de la santé s'acharne sur ces établissements ça veut dire que même ñi formé dans des établissements reconnus euh, typiquement par l'État du Sénégal nous sax bu ñu de duñu recruter. Euh, c'est le combat qu'on mène ñun depuis 2017 on délivre les diplômes de licence en sciences infirmières et obstétricales et autant il y avait Galoba qui était au niveau de la fonction publique. Et lui, c'était un ancien directeur des ressources, humaines du ministère de la, Santé. Donc, il y avait Ben solidarité. nouveau qui de euh, amul kenn ci fonction publique ku wax hmm? que doo recruter ñun suñu diplômés. amul décret 2018 euh, 850 article 21 signé président mhm. a c'est des lois c'est des dispositions législatives et c'est des dispositions réglementaires je ne sais pas ak sama xel. suñu disposition. Mhm. parce que on ne peut pas gratuitement causer préjudice à des milliers de jeunes qui sont là exploités par un système cruel. Mhm. rupture il faut qu'on règle ce problème Nous bind nañ mémorandum rencontré nañ ci mais régime bi fi nekkoon dafa am régime bu ñew bu bess bu ko changé mhm. le ministre de la santé bu bess bi bind nañ ko biñ ko bindé tontu bu ma tontu mi ngi sama bureau dina la recevoir su ma jot loolu rupture. <laughs>

pour nga mun jàngi ci France. diplôme d'état il est bu illégal bu ministère de la santé di délivrer te ñemewu ko sa tuddee licence. c'est-à-dire que l'ANAC ou le CAMES. ou le CAMES ndax CAMES sous région bi la. Mm-hmm. waaw diplôme c'est pas accrédité. te Sénégal dafa ratifier la convention d'Addis Abeba sur la reconnaissance des titres grades et diplômes de l'enseignement supérieur au niveau de la région d'Afrique mm. moom mooy ambassade de Gabon ambassade de euh, Congo ñom ñu ngi protéger sen ay doomu réew yuy ñew di jang ci Sénégal xam nga lan lañ leen wax. bu leen inscrire ci école bu amul habilitation ak accréditation ndax diplôme bu ngeen am su ngeen ñibé sen dëkk duñ ko nangu moy diplôme d'état bi ñuy wax gabonais yi ressortissant ou. Euh, région d'Afrique bi wuñ ko ndax duñ ko nangu sen dëkk la convention est au-dessus des sources de droit Euh, euh, interne. France pour nga jàngi ji fa timit binduma lii si ñëwuma ko. jox ma beneen décret bi. waaw léegi. Mhm. yan condition la ñu war remplir lii kii bi la mooy lettre kii bi. beneen décret bi am na beneen beneen décret. 2018 2021 bi am na aussi. Mhm. Mhm. allez-y continuez. waaw décret 2018 850. waaw bii bii yéegal ba ci kaw. non. article 21 nga wane fu Macky Sall signé tamit. parce que mënoon na nek ben page rek. parce que man signé wumako wa bobu waaw hmm baax na. Mm-hmm. jël ñu xol titre bi. 2024. Wa bii ban la. Mm-hmm. article bi article 3. bii ban la. voilà gis nga enseignement supérieur xam nga nan lañ ñuy wowe établissement privé d'enseignement supérieur mom moy EPS. décret décret bii régir établissement privé d'enseignement supérieur yëpp demal article 21 nekkul le document moo tax metti quoi mhm. Mhm. non benen. waaw voilà gis nga article 21 Devenez. Mhm. si jàng bi les EPS habilités et dont les programmes d'enseignement sont accrédités par l'ANACSUP, peuvent présenter leurs étudiants aux examens organisés par l'État Nous, nag examen au hmm. ministère de la santé di organiser pour licence ñun La ci ndax ndax ndax examen beau à école yu remplit les conditions. la le ministère di organiser c'est grave ça Bon, <laughs> ba deuxième année, les diplômes des EPS accrédités par l'ANACSUP ou reconnus par le CAMES sont reconnus par le ministère chargé de la fonction publique. Nous diplômés. Mhm. ils font l'objet de blocage administratif au temps de l'ancien régime. Nous avons décrit, nous déposer fonction publique kenn mënu ça c'est les dispositions bon par exemple. l'ancien régime comme nous, aussi xam nga laps de temps bi pour me semble très court. Hmm. est-ce que aussi du au lieu nek dans un dans un euh, rapport de force. Hmm. est-ce que du privilégié pour aller vers des trucs de dialogue. Hmm. peut-être ñom bu ñëwé le temps que peut-être ñuy xol taxi yeen ngeen war leen yu be li nga xamné mom nga fi wax lepp peut-être que ça ça peut permettre de faire un bon je suis parfaitement d'accord avec vous mais moi xam nga man on peut même me qualifier de pastéfien sur la neexee ndax xam nga je suis pas contre ce régime là parce que la personne qui est à la tête de ce régime-là m'inspire confiance. Parce que je l'ai suivi, muy Ousmane Sonko. Euh, gouvernement mon nec à la tête. Mm-hmm. lui il m'inspire confiance de par sa volonté et par ses principes je me suivre man. Mm-hmm. mais il doit faire attention avec ses collaborateurs. Mm-hmm. mais au niveau du département ministériel en charge de la santé mais

Euh, Benendi, bi décret 2021. 2021, 2021. bi. 2021 non non non day génn ci bi non du yooyu. Je mhm. ne du décret pas. mu koy gis muy mhm. ci affaire santé yow même la muy deuxième bi envoyé mhm. hein?

parce que comme on a eu à le dire mm-hmm. ñun duñu accompagner ni ci luddul dul parce que mom li wax ni man dama tok ci ay plateau décrier que ba Je mm-hmm. xëy duma dem au fond des choses mom suis syndicaliste man amna yo xamni maîtriser wu mm-hmm. mais je sais que y a trois choses que je ne man mënuma ko parce que déjà euh, au niveau des écoles de formation il y a le ministère de la santé il y a le ministère de la formation je pense professionnelle mhm. mhm. donc nous, ñaar sommes les comme nous, ñaar tous les moi je ne suis pas d'accord à ce qu'on laisse des écoles mhm. man dama koy wax ça fait plus de trois ans ma je wax dama dis crime social pourquoi crime ah, social un crime financier rek <laughs> non pourquoi je dis crime social parce que tout simplement euh, je ne peux pas concevoir ay xamoo seeni waajur nu ñu ba fay hmm. nga fay deux ans minimum c'est 2 millions hmm. après nga dem examen de certification hmm. nga dem examen de certification soit do am la preuve l'examen de certification de l'ENDSS et l'examen de certification des écoles privées diffèrent bokkuñu ah ba un nga dem certification par exemple tu prends sur 1000 infirmiers exemple par exemple dama approximé 80 personnes c'est au Sénégal seulement mhm. c'est au Sénégal seulement la il y il y dafa une pénurie de personnel de santé alors qu'on parle de chômage plus de 3 000 agents, plus de 6 000 infirmiers, plus de... Alors que là. au chômage, alors qu'on parle de manque criard d'agents de santé au mm. niveau des structures de mm. santé. Mm. Au niveau de la fonction publique, man demandé dañ de wara Parce que le recasement politique, clientélisme politique, clientélisme politique bi vraiment je xamul aani bee mënul système de santé amul ben diplôme mm. nga recruté au niveau de la fonction publique mm. Dès qu'on fay weer mu ñëw encombrer les hôpitaux en revanche nga baye borom diplôme yi sorti wul mm. au niveau de la formation de base baxul moi je me dis que toutes les écoles qui font zéro admis toutes les écoles yi nga xamni ne ñu livrer des diplômes yo xamni c'est légal mais nañ c'est important pourquoi on les laisse continuer il faut les fermer. Ah. benn ñaareel ba. Mm-hmm. ñaareel ba moi je me dis l'ENDSS doit servir man damay wax toujours par exemple. au début xëy ne léegi changé na mais avant lola laa lola loolu laa comprendre que yow da ngay def exa da ngay def formation trois ans infirmier ou sage-femme nga dem certification jàlloo nga redoubler léegi soo redoubler nga reprendre soo reprendre nga defaat certification Diallo. ñu nit reprend la première année bon je sais que ça a changé. Mm-hmm. Mm-hmm. mais moi dama ni dama len wax ba un DSS kooku lu mu nul nul def école formation. Mm. pourquoi duñ ko permettre mu def concours d'entrée en deuxième année à e ñu former ko suñ ko former mu génn. ñu au niveau des structures de santé. non ma dem. dañu laal fo bayi laal ah, ah, ah, non ça domaine la la. c'est en 30 secondes décret article premier ou décret bi. Mm-hmm. décret bi relatif à la reconnaissance. au classement et à l'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur. Mm-hmm. mooy diplôme jang bu kawé bi. Mm-hmm. décret bi daf lay wax ban condition la war remplir pour reconnaissance article premier na yéeg rek. waaw na non non non parce que xam nga makoy wax ni. ngeen gis ko mo gën waaw parce que li na yéeg na yéeg li kii yi la rek visa yi la rek. Mm. waaw na yéeg bu baax yéegaatal. jeex na. waaw page 2 bi non non non non non xoolal vite fait tënk ko Ibrahima temps moo jeex pour ma waaw baal aussi ma ma organiser émission bi. aussi temps bi moo jeex. temps bi moo jeex dama koy tënk en 30 secondes. waaw léegi waaw j'aimerais attirer l'attention mm. sur des problèmes c'est des abus d'autorité de la division de la formation à mm. l'encontre mm. des établissements autorisés conformément aux dispositions de la Constitution parce que euh, il y violation de la loi 94 79 portant euh, franchise liberté académique mhm. parce que ñun mënuñu am mission ministère bo xamante ni yoonam nekkul ci jàngale ñeu di ñu wax nan la ñuy Mais message bi jàll benen bi moom moy lan recruteur yi mhm. muy structure de santé une mhm. muy fonction publique ñu ñu reconnaissance diplôme yu ñuy recruter du kenn mo leen koy dicter c'est la loi. c'est les dispositions. jërëjëf Ibrahima ibrahim inshallah merci beaucoup dinañ si ñëwaat si ñu gën a yaatoo. dafa dafa déglu waaw mën nañoo mën nañoo apporter la contradiction parce que amul euh, benn problème parce que aussi c'est l'équilibre de l'information mais en tout cas liñ fiy diffuser yëpp aussi c'est des textes yoo xamante aussi dara génn ci ay loi ñoom aussi bu ñu nee ñëw indi yeneen seen kii ah non liñ fi wane fii yëpp ay décret décret ça émane du président de la

euh, nous faisons pas du syndicalisme comme le font les ñun patronal donc nous, syndicalisme de réforme Nous ñun nekk ñu ci gégee ñu ennemi aussi état. Mm, très bien c'est loolu aussi c'est bien partenaires sociaux mais da ngay wax ak ay nit yoo xam mm-hmm.

jërëjëf nuyu ñu waa saint wi mhm. magi Pastef. Mhm. waaw dama li ma naqari rek li ma bëgg wax ci santé gi waxuma ko ci. parce que man maa war a defi journal te temps bi daa jëm. waaw loolu la donc donc ziar ñu romb naa mm. ci émission bi te bëgg ñu waxaat ci santé gi mu gën a leer. parce que vraiment lii lu jara a leeral. am na solo lu jar a leeral. macha jërëjëf maman Magui Pastef yal na yàlla sàmm la mm. jërëjëf merci beaucoup Ibrahima. waaw waaw le temps a été court mais nous ñu ngi leen di ndax problème technique mhm. je suis d'accord ba mhm. par problème yi aussi mhm. c'est des problèmes qui sont du ci wax ak du c'est des dispositions législatives et nous sommes dans un état de droit peu importe position boo occupé yoon moo nekk sa kaw am voilà merci beaucoup Ibrahima jërëjëf waaw di wax rek comme ni ma koy faral di tëjee hmm. lu ci dëng ñu jégal ñu ko. waxtaan bi ñu bëggoon rek mooy waxtaanee réew mi. am na solo di jafe ni réew mi Ibrahima dama doon dafa taalibe woon lool. <laughs> yaa ko tuqale. bon accord ni ma koy waxee de l'autre côté aussi hmm. on est ouvert bu ñu ñëwee. waaw waaw nous sommes ouverts au niveau du ministère au niveau des autres syndicats même en hmm. tout cas nous